dale nag jàmb ñu ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyandoo yéen i kaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu hôpital Magatte Lô bi nga xam ne moo fi tàkkoon fan yi ñu génn ba am lu toll si ñeenti liir yoo xam ne ñàkk nañu si ba bakkan ki nga xam ne moo nekkoon directeur hôpital ba di docteur Abdou Sarr ni ki bu daan nay démissionné maanaam bind na ab lettre démission maanaam jébbal ko njiitu réew di président Macky Sall yéen i kaay gi nee na la nga xam ne moo tax directeur général ba di tekki ndombal tànkama nee na dafa bëgg a yombal gars yi bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér gi yaram gi di Abdoulaye Diouf Sarr yaram mbooleem ñi nga xam ne ñooy personnel de garde bi nga xam ne ñoo nekkoon ci hôpital Magatte Lô yéene kaay na ñi nga xam ne ñooy li nga xam ne wane na ko maanaam mooy nag personnel garde bi ñoom nag ñoo wane li nga xam ne mooy am négligence yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na am na ñaari liir yoo xam ne doon nañuy wax ne ñaar ñooñu tamit dañu ñàkk seen bakkan ca lakk ga loolee Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér gi yaram gi niki démb daan na koy ne moom la enquête bi wane am ne personnel garde ba daan koy wane mooy docteur Abdou Sarr mi nekkoon directeur général hôpital boobu mbir moom ba muy xew Touba ko fekk yéen kaay gi mu ñuy xibaar naan ñu rapport bi nga xamante ni jamono ji maanaam teg nañu ko ci taabalu njiitu réew mi di président Macky Sall la nga xam ne moom lay wax daal lu jëm ci wàllum négligence yoo xam ne amoon na sa hôpital boobu yéen kaay gi du source ñu xëy fekk fa docteur Abdou Sarr mi nga xam ne moo tekki ndombal tànkam nee na am na benn gynécologue boo xam ne bi ñu ko indee ci hôpital bu Linguère dama ko takk def ko soxna ndax su ma ko defutoon mën naa jóge ci ba ndax bëri woon na ay yoo xam ne maanaam bëgguñu woon a ñëw ñëw ci hôpital Magatte Lô ba ca Linguère loolee moo tax gynécologue ba ñu fa indi dama koo takk ngir nag mën koo convaincre maanaam mu mën a toog ca hôpital ba loolu lépp nag la ma sa jublu maanaam mooy liggéeyal Linguère yéene kaay gi di source a xëy duñu xibaar naan ñu nag ay jafe-jafe dafa am diggante docteur Abdou Sarr ak ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér la ñu génn ba fa Abdoulaye Diouf Sarr fekkee sax nuyu ko moo tax moom docteur Abdou Sarr lettre bi yoon boo xam ne daan na fay jaajëfal ki nga mooy ministre de la santé ne négligence criminelle la moo am ba tey ci biir journal bi daan nay wax ni ñi nga xam ne ñooy personnel de garde bi ñooñee nag am na si kenn koo xam ne ba mbir may xew sax da sango yéen a kaay gi du l'observateur bàyyi mbir moomee wax ci wàllum politique commission politique bu dialogue national bi journal bi nee na soo muy duule nag mooy nekk solution ci lu soxal wàllum audit électoral bi ngir nag Karim Wade ak Khalifa Sall ñu mën a saafara seeni mbir di joxaat seeni droit a kaay gi di Sud Quotidien nee na opposition bi ak pouvoir bi jamono ji kenn ku nekk ma ngi xiiru maanaam kenn ku nekk ma ngi ñu menacé sa morom yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu mambay ñaa moom nag daan nay porte plainte activiste di Karim Xurum Xaaxa ndax Karim Xurum Xaaxa dafa wax ne manifestation yi ba mu amee ci réew mi mambay ñaa dafa bëggoon a jóge APR maanaam ñëw fekki Ousmane Sonko demoon sax bay laaj numéro téléphone maanaam njiitul Pastef a kaay gi di l'info nee na Ousmane Sonko ay jafe-jafe la am ngir nag gisante ak xalif général des Mourides ana lan moo ko yi daf cee am kenn koo xam ne maanaam ku jege xalif général lool la ñooñu nag bokk nañ ci ñi nga xam ne maanaam ñoo yàq bépp projet boo xam ne Ousmane Sonko sumb na ko ngir gisante a xalif général des Mourides yéen a kaay gii di las xëy duñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall maanaam nag bëgg naa amal ab tournée économique ginnaaw korite gi yéen a kaay gii di Vox Populi ñu xëy fekk fa directeur de l'emploi Pape Modou Fall moom nag nee na programme bi nga xam ne ñoom sumb nañ ko na si ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñetti junni maanaam ci ay emploi nee na jamono ji sax Modou Nabar maanaam moom la emploi nekk yéenekaay gi di enquête xëy dañu xibaar naan ñu Pape Amadou Sarr mi nga xam ne moom lañ dénk deer moom la ñu bëgg a tayle ndax jamono ji gars yi ñoo ngi koy songo yéenekaay gi di L'As xëy dañu xibaar naan ñu am na benn agent LONASE boo xam ne dafa daal di jël lu toll ci juróom benn ci ay millions ci keesu LONASE yi yéenekaay gi di Direct News daan nay xëy ci tâtonnement lambatu yi nga xam ne moom la ministre Aliou Sarr nekkee ci lu jëm ci wàllum politique touristique yéenekaay boo xam ne moom la ñu bëgg a indi ci Sénégal Sénégal léegi dafa bëgg di fay salaire premier ministre lañ la yéene kaay réew mi quotidien Cheikh Omar Anne mi ñu dénk wàllum njàng mu kaw mi jubbanti na syndicat bi di SYDES na am na ci ay njiitu SYDES maanaam dañoo arrogant ba pare ñoom dafa mel ni yëfu xale la ñuy def Cheikh Omar Anne xam ne ñoo ngi wax di ma song ak préavis bi nga xam ne daanu ñu koy dugal maanaam tegiwul fenn yéene kaay gi de Dakar Times nee na xale yi xam ne ñoo dëkk Tchad jamono ji jamono ji nag mbir ma ma ngay gën a yaatoo ndax sa càdd gaaye ba ñu manifester total la ñu doon yàqate di ko saax-saaxee fa nga xam ne mooy njame naa yéen kaay gi ne na ndaw ñi nga xam ne ñoo dëkk càdd ñoom nag jamono ji li ñuy sàkk mooy force barxaana daal di jóge càdd ba pare ab civil jiite li nga xam ne mooy réew ma yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na Idriss Déby mi nga xam ne moo génn àdduna lu toll ci fanweeri at def na ko sa càdd maanaam nag dina jafe lool ci doomam ji nga xam ne mooy Mohamed Déby ngir nag mu daal di koy wuutu maanaam jël ndono la yéen kaay gi xëy duñu xibaar nan ñu école police fan yi ñu génn am na ci kenn kenn koo xam ne ñàkkoon na si na di ab elew gisaan nañ keneen koo xam ne faatu na ci ca diiwaanu Kolda yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na yambaa ji ma ngi jàbbaajoo ngi ci réew mi diiwaanu Jurbel jàpp nañ fa yambaa ju bare am na juróom-ñeenti nit ñoo xam ne teg nañu leen loxo yéen kaay gi de sat xëy ci Ligue des champions tey ji demi-finale aller yi diggante Paris Saint-Germain ak Manchester City yéen kaay gi di sunu lamb nee na combat Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier jàpp nañu ko fanweeri fan ak benn ci weeru sulet yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Pape Abdou Fall di ab promoteur nee na Bira Sène ñu dénk CNG